CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal. Malaysia Umo, Soumari.com ak savon de Marseille Alfi ñoo leen may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf tey la tey suba la nettali bi dëkk bu yëngul yéenekaay yu bari di ragal yëral xët mu njëkk la li mu bind mooy Ndakaaru talaatay danse waaye Yewwi Askan Wi nañu dañuy gontu tey jii ca terrain ak pas ba ca Parcelles Assainies amal fa seenub giga meeting avec ou sans autorisation maanaam gisuñu ku leen ko tee mën a meeting boole recruter ngir ñu bëgg a yàq seen xew yi di tuumalit ministre de la jeunesse Pape ne dafa mobiliser ay jeunes recruter ay nervi ngir ñu dem taali kër Ousmane Sonko manifestation yu bari yi waaye yeewi askan namm ci réew mi tey ak suba témoigné ne nañu waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi koy ñaawlu liñ ci gis moo di ay pexe yu gaañi teg ngir bëgg a salfaañe bés bi le jour nañu bésub tey bésub suba ak ginnaaw suba 72 heures chrono la rek ngi Ousmane Sonko mën a am fu mu mën a jafandu ba du dem ci yoon ak Mame Mbaye Niang honorable député Abdoulaye Diagne ci xët mu njëkk direct news looloo am loolu la ñu bëgg waaye duñu leen ko may ndax ñu ko ëpp maqaama moom Ousmane Sonko gën koo tekki dara ci réew mi bi leen yoon soxlaa dañoo dem wuy ji ko gis nañu fi Abdoulaye Wade gis fi doom ja Karim Wade gis fi Khalifa Ababacar Sall Idrissa Seck gis fi Cheikh Agibou Soumaré bu yàggul ku ci nekk ci ñoom bi la yoon soxlaa dangaa dem wuy ji ko Ousmane Sonko ko tax mu bëgg a jaxase réew mi Abdoulaye Diagne coordonnateur bu mouvement des élèves et étudiants républicains di ñu li ñu bëgg dañu sonal seen bopp rek waaye duñu ko am donte nag wóolu nañu bu baax a baax suñu force de défense ak sécurité yi du tee danañu taxaw mobiliser wu wan leen ne ngàtt geen a koy faj fa ñu fàkk ne dañu fay daje ngir méga meeting fa tey jii di ca Parcelles Assainies l'observateur xëy na fa dem ubbil yéenekaay bi ab reportage le journal bi def ca terrain ak APES ba ñu war a defee meeting ba ak lii ko wër ñu bari ci askan fa yeewoo rawatina nekk seenu fi toogatul jamono ji li ñuy ragal mooy yëf yëppi loxo débordement am fa ngi ñuy xamal it ne ci farandoy bi am na ci ñu taxaw te te fas ñu ko yéene yamale ci waxi kese bokk ci ñoom Pape Malick Ndour ak jeunesse républicaine bokk ci ñoom it Lat Diop directeur général bu LONASE moom responsable APR bi ci Géejawaay yéenekaay bi nee nañu ay téeméeri téeméeri jeune la dajale jox leen i moto tasaare leen ci commune ya ca département bu Géejawaay ngir ñuy wër di wattu kaaraangeeg nit ñi jël na it ay jeune jox ay watay pick ngir ñu wër Géejawaay gi di protéger askan wi te it ñoo ngi opposition bi yéenekaay bi nañu bu ci yàlla jàppul danañu fi dégg diw wàccal diw vox populi nañu en tout cas tension bi yéeg na ba jéggi day opposition bu taxaw pare ngir joxe bakkanam ak pouvoir bu taxaw ne du maye dara lañu fi gis source wa nañu ñoo ngi dund ci réew mi situation politique bu teng tatar waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi dal ci kaw waa Yewwi Askan Wi waa Yewwi dafa yu nu ñu ko mëne ci jamono jooju source wa ne nañu ci lañu gis Macky Sall muy dund no stress dalal gayndey football yu ndaw yi ca pale àndandoo ak ñoom di dóori pooc ndax dóori pooc war na ko moom bu ñu xëyee gis laaj bi anki dina kay xëy samp ci xëtamu laaj bi moo di ndax état bi néewul doole ci dogal yi mu jël jëmoon ci wàññil askan wi njëgu dund gi journal bi mi ngi ñuy xamal ne njëg yi ci marché bi état bi wàññi ko donte commerçant yépp jëfewu ko it waaye am nañu koy jëfe fa jur jàng ji dëgg nekk yéenekaay bi nee nañu moo di ci njëgu luyaas bi ak ci njëgu transport bi Sud Quotidien nañu moom kay bu doonub guerre la ñu ne état bi wéer nay ngànnaayam ak tëleem ci njëg yi mu bëgg a wàññi feeñ fàng ne góomub jël la def yi mu ne nañu ko wàññi commerçant yu bari defuñu ko yenn transporteurs yi ñoom ñëw yokk ci xar mi karaw yokk paas bi te ñi cay gën a sonn ñi cay gën a dee yéenekaay bi nee nañu ñoo di askan wi askanu maire di Babacar Diop moo nekk ci xët mu njëkku la bi mi ngi ñuy wax ne moom Babacar Diop ñëm wuutu ca maire ba sulil na leen ay mbóot ñu fa bàyyi ñu bàyyi ko fa te dem seeti beneen maire bu ay mbóot sulee bay jàllaañu libération nee nañu mooy ca maire bu Kër Massar Nord maire ba fa nekk di Adama Sarr mooy tuumal maire ba fa ne woon di Moustapha Mbeng ne ba muy dem dafa yóbbaale juróomi wata yoo xam ne commune baa ko moom ca wata woon ca kees waaye malheureusement mécanicien bi dafa feebaroon ba dem Maroc faju ji CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal Malaysia Umo Soumari.com ak savon de Marseille Alfi ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi